tey un euh, projet Smart Sénégal bi nga président Macky Sall mënu ko dënk ñu ñëw donc ben composante bi moy walu euh, sécurité euh, en tout cas sécurité donc de de Kaolack parce que nous xam nañu né Kaolack région Carrefour la région la bo xamante ça fait partie des régions les plus peuplées du du Sénégal lolu mom mo waral avec le ministère de l'Intérieur avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité nous avons choisi deux bi pour mën euh, des caméras intelligentes daanaka tey déployé plus de 37 caméras dans la ville donc un ci lieu stratégique yëpp tey euh, des caméras une ñu fa des portées à plus de 1 km. donc lolu muy wane ne tey Kaolack danaka mën nañ ko wowe safe city parce que de la bo xamantene tay force de défense et de sécurité mën nañ xam à temps réel lepp li nga xamantene da xew au niveau de Kaolack nous pouvons intervenir à chaque fois bu amee ay incident bu un accident ci ci tali bi etc. etc donc euh, vraiment euh, nous avons jàpp ne le bi presque yambo na que dem nañu ci centre de commandement bi gis nañu déjà image yi nga nous le nous visualiser mais au-delà de ce projet nous avons également un dispositif de Wi-Fi que nous nañ avec le ministre de la santé ci les li nga xamante ne moom permettre connectivité hôpitaux rappelé nous que 17 hôpitaux intégrés par fibre optique à l'intranet administratif mais également tey ci région Kaolack am installé un dispositif de wifi fi usagers et les personnel de santé ont accès à l'internet au débit donc le centre ville. donc lolo, euh, def nous ko vérifier connectivité bi l'hôpital euh, euh, ci hôpital ministre bi avons aussi grâce à la collaboration de Free et de Huawei yi nga xamantene ñom ñoy suñu partenaire yu ñu gungee ci liguey bi euh benen bi également moy fi nga xamantene fi ñu nek muy la maison du citoyen de Kaolack le président Macky Sall euh danaka bu mu jëlé réew 2012 ak légui mbëbëtam yépp moy nu muy def bu administration bi gëna a population bi administration bi nu ñuy def ba gawal procédure yi lolu nak suñu koy wax nous mooy ñu mën am administration yëpp ci point dans département bi avons tey am nañ ko fii ci Kaolack euh, presque pare 90 100 euh, gros œuvre on est à plus de 80 de second œuvre Et équipement yi euh, au niveau de Dakar donc loolu muy wane ne centre bi nga la maison du citoyen de Kaolack dans mën opérationnel dès le début de l'année 2021 pour nous nous délivrer le maximum de services à nos concitoyens du même état civil du même casier judiciaire faut que nous nekk rek mun ñëw ci maison citoyenne bi ñu mun gindi pour nga am ce kayit dans un temps record loolu moom mooy le projet euh, maison citoyenne bi nga le président Macky Sall daf ko dans les 45 départements du Sénégal.